sëriñ Khadim Dieng ñu ngi lay ziare bu baax expert ngeen bokk ci commission sociale waaye fare ci wàllu recasement yi maanaam mooy mbokki taalibe yi nga xam ne ni da leen doon jëli ci ay kër di leen yóbbu ci yeneen kër yoo xam na nii da leen koo able boobaak léegi nag yàgg na situation liggéey boobu fan la toll li ngeen am doy na wala mbir mi loo ñu ci mën a xaymaal. waaw jërëjëf euh, sëriñ bi maa ngi lay ziare bu baax. di rafetlu kàddu yi nga xam ne laañ nga ko mu jëm ci situation yi nga xam ne moom la ñu dund jamono ji nga xam ne moom lañu nekk euh, ndax kenn ku ne xam ne comme na ma koy waxoon ndox mi bi mu wàccee ba léegi am na ay dégâts xam ne bàyyi na ko fi dégâts yooyu ba léegi mi ngi fi dara jógagu fi wala lu ci baree bari mi ngi fi am na loo xam ne ni wàññeeku na euh, kër yi nga xam ne nag moom lañ jëloon doon ci def ay doomu aadama kër yooyu moo jeex jamono ji may wax ak yéen kër yi nga xam ne yéen a ngi ko gis ci écran yi nga xam ne nit ñi ba léegi ñi ngi ci biir ndox mi te ñi nekk ci biir ndox mi taalibe Sëñ Tuubaa lañ te yaakaaruñu kenn ginnaaw bi yàlla jàllee sëriñ bi képp lañ yaakaar taalibe sëñ Tuubaa yooyu nag ñooy dund dund gu metti gii nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi ñuy tàllal loxo mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo dëkkee dëkk bi te yàlla defal leen ñu am taw féexe tabax kër tëj ko te màggal Tuubaa képp tax ñu koy jëfandikoo nañ geesu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñ ginnaaw sonn nañ jaaxle nañ te gisuñu fenn foo xam ne nii mën nañ faa nekk ndox mi bari na yooyu bari na kenn ku ne xam ne yooyu moom bu nawet bi ñëwee dañuy bari lool ba àgg ca lool te bari waay googu muy bari nag bu fekkee ne am na yenn mbokk taalib yoo xam ñooy dund ak ndox mi daanaka mën naa ne duñ jug ci feebar loolu moo tax ñuy tàllal loxo lillaahi wa rasuli képp koo xam ne daal taalibe sëñ Tuubaa la nga dëkk dëkk bii nga am kër te tëj ko lillaahi wa rasuli ubbi ko jox ko taalibe sëñ Tuubaa yi ñu nekk ca nga jaamu ci yàlla jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ndax sonn nañ taxamuñu fenn foo xam ne dinañ fa jëm loolu daal moo tax kon bu la déggee daal kër yi nga xam ne am na ñu ko jotana able loge ngeen ci ay nit ba mat sëkk te des na ñeneen ñoo xam ne itam dëkkaguñu. waaw ndax kër yi euh, comme ni ma ko waxee woon jamono yi la ñu génn amoon nañ lu tolloog 23 24 kër yooyu yëpp jëfandikoo nañ ko euh, kër wala gi nga xam ne fàggu woon nañ ko moom tim fees na dell daanaka kenn mun a faa nekk kon nag li des mooy ñu fexe lancé waat appel woo waat taalibe sëñ Tuubaa yi laay wa rasuuli yi képp koo xam ne yor nga barab boo xam ne daal nit ñi mën nañ faa suturloo nga ubbi ko jox ko taalibe sëñ ñu nekk fa ba jafe yi jeex ñu jëlee waat leen foofu yóbbuwaat leen nga xam ne fa lañ nekkoon وجنة من هالك مريض